waaw léegi nag Adja. Mhm. victime di net ni muy doxee mooy lu ne ci internet bi di wax di wax ci nit ñu jàpp ne yàqum der la wala ñu jàpp ko rek dañ koy mhm, indi ba indi leneen loo xam ni daal da koy contraire soxna si nag du ñu di li muy wax mhm. ndax site bi ko jëli site bu crédible la boo xam ni seeni émission daaw ma ci gisuk caay-caay waaye daal nee nañu président Macky Sall mbokkum ndaw si la te ma ngay yalwaan ak naan sombi ci internet ba vidéo ba nag fu ne ñu ngi ko fay wëndeel jox nañ ma ko ni ma ndax lii dëgg la man leen ah man de xaw ma rakku président wala ma xam maga musuma ko gis mhm. ñun daal soxnaam la ñu xam ak ay doomam xaw ma ko bokk ak moom nday bàyyi wala ñu bokk ak moom nday dañuy ànd xool vidéo bi ne ci internet bi bi nga xam ne moom la ñuy wax ni euh, moom mooy mbokk président mag Sall te ma ngay naan soom bi ci réew mi ak a tumuranke war moom bul jooy possible ni bu baax parce que bu bu waxtaanee rek solution dina am te bu solution amee léegi jaamu yàlla jàpp ci euh, noo tudd. Euh, màgget Sall lan nga ci lan nga bokk ak son excellence. suñ ñaari bàyyee bopp benn bàyyi. Ah, seen jafe-jafe fan la doore ak lan moo indi coono bi ngeen sonn yéen ñaar ak sa sœur bi tëdd nii feebar. coono bi moom danoo sëy moom danoo sëy àll ba. waaw moom dafa amoon jëkkër. léegi nag moom bu mu feebaree jëkkër ji bàyyi ko. léegi mu ñëw ci man mu ànd ak man man nag jaay naa ndox jaay def naa lu nekk. ndimbal laa bëgg jaay naa ndox xam nga frigo bi di def katu ndox damay jënd glace di def ci kii glacière yi di dem di jaay di ko ñëw di ko faje lekk sax daf ñuy të wóor na yàlla billaay wallaay taalaay keroog bañ ma bëggee génne damaa jaaxle fii lañ ma bëgg génnee ci néeg bi ma jaaxle amul fu ma dem parce que amu fu ma jëm dégg nga aw ma ndey aw ma baay sama papa lañ yore woon sama moo ñu doon jàppale bu ko Macky Sall jàppale mu ñu ci léegi gaañu na. am papa lan la bokk ak président Macky Sall. ñoo sama papa papa yi moom mooy Cheikh Tidiane Sall. waaw Cheikh Tidiane Sall la. waaw si yi mag dama bëgg a xam nan ngeen demee ak président mu leer ci bopp nit ñi maanaam yéen ak moom seen papa yee bokk wala lan la. sun sun yee bokk benn baay. sa papa ak papa yu mag. Sall ñoo bokk benn bàyyi sama mooy caat. waaw sama mooy caat. d'accord d'accord léegi euh, ñëwal tam yaa ngi woon ci kii bi mu feebaree. kii bu mu feebaree nag ah mu ñu indi ko mu ñëw ma koy faj fu nekk dugg naa fa fu nekk dem naa fa kër sóor yi laa mujjee nii. <laughs> Omar euh, élément bi lañuy jëlee ci internet bi muy wane daal ak président euh, seetaan gu mu seetaan kenn ci rakkam. ak njabootam di sonn nee na nag ba mu daan dund baayam daana leen daana jox baayam baayam di leen dimbali mais baayam faatu na ndax président dafa nekk koo xam ne itamit daa war a nekk ku am ku am mbokk mu ñàkk wala mbokk mu sonn wala ku dul am mbokk mu ne ci jafe-jafe ba ñu la joxee am réew rek ku taq ci yow daa war a riis comme ñëpp wala ndax da nga jàpp ni lii jaaduwul ci kuñ naan yor nam réew. waaw ah, Souleymane Faye da doon wax naan ab askan boo fa tekkee yow dong tekkiwoo. tekkiwoo. waaw waaye boo tekkee tekkil ñeneen ñi mooy wane ni tekki nga hmm. waaw loolu Souleymane Faye am na way bu mu koy wax hmm. léegi nag euh, pour dikk ci sujet bi hmm. mooy bu doon nay femme bi du ma def lii doo ko def waaw nit suñu borom da ko teral maanaam nit du la teral ba pare ngay toroxal sa bopp waaw man tey bu ko doon conseil waaw du dugg ci lii te du ko def waaw parce que bokk ak Macky Sall warul tax lii pour man waroon na am yeneen voyage moyen pour def lii du ñàkk ni sax jaar nañ ci loolu mm-hmm. mais egg ci lii jaru ko waaw teg ci bu doon may ki koy filmer tamit du ma ko filmer dama koy protéger mais ndaw si edd la bëgg ne dafa feebar waaw ah, mais edd bari na ñu ko gën a nekk ci coona mais di ko dund avec dignité ok waaw di ko dund avec dignité loolu peut-être nag loolu man la du moom parce que du ñàkk moom tolluwaay bi muy toll ba egg ci niveau boobu mhm. peut-être moo ko poussé pour mu egg ci lii mais mhm. man bu ma sañoon ah. du demee nii waaw ah, parce que fi mu ne nii même tey jii bu buñ ko dimbali woon sax du safeeti surtout am xaaweeku na ba noonu hmm. loolu moom lu nu waroon a taxaw la léegi nag euh, bokk ak président de la république benn kilifa man jàpp naa ni ñi ko wër ñoo ko war a dimbali loolu dama koy faral di wax lu bari mhm. parce que des fois fii ñun nu ñu jàppee kilifa dañ lay couver aj la ba benn jamono da ngay sori réalité bi. Mhm. bari na lu ñuy jàpp ni yëg nga ko fekk yëgoo ko léegi nag ñi dox sa diggante ak say mbokk ñoo la war a di lijjantil yenn détails yi. Mhm. kilifa mën nga ko fajal sax loo xam ne moom du ko yëg. mais yenn détails yi ci suuf yaa koy rek la ba moom du mën a egg ci moom parce que jiituwul tey mos na wane benn maire ci jamono. Mhm. maire boo tam mun a Macky la bokkaloon. ba dal ko ci. Ah, waaw te mu dëkk Fuuta. waaw dëkk Fuuta waaw waaw. tey jii lu mel ni amaat kii ne Macky Sall la bokkal ba li dal ko ci. Mhm. waaw loolu dama ni kon bu dee nii ndimbal rek lay laaj. des fois yenn saa yi nit ki yedd ko yërëm ko ak xaw naa ko yedd au début mais léegi damay ji teg yërmande gi. Mhm. yërmande gi mooy bu ñu ko mënee dimbali. ñu dimbali ko bu ñu ko mënee jàppale ñu jàppale ko bu ñu ko mënee taxawu ñu taxawu ko mais form bi nga ko defee moom soxna ci man ànduma ci. d'accord mais aussi ñi wër Macky Sall aussi ne da am loo xam ne jarul sax Macky di leen ko sant. Mm-hmm. y a des yoo xam ne nit ki yaa koy réglé taf taf de jarul sax mi yegg ci kilifa gi yegg na diw laa soxla li nii dañ koy réglé parce que ñun li ñu jàppee kilifa la. Mm-hmm. suñ kilifa yi des fois ñu ŋàññi leen fekk réalité bi la leen nëbb completement d'accord mi sëriñ di directeur président sox sori na. d'accord waaw loolu tax des fois il ñu ciy bàyyi xel di leen dimbali am na ñoo xam ne seen soxna moo leen di régler lool loolu tax soxna si baax am solo aussi. parce que gëm naa ne tey jii comme ni ñuy taggee soxna njiitu réew mi. bu jotoon ci lii du yegg fii. waaw am na am na ñuy wax ni moo leen yóbbu bitim réew faj leen. waaw kon tey jii gëm naa ne bu jotoon ci lii du yegg fii. d'accord mais fii néew di doole tooñ la fi léegi nag femme bi moom benn cat rek moo ko dal waaw bu ne bokkoon passif te nekk activist hmm. président dina ko recevoir. dana ko recevoir. ku mën a recevoir ay saaga kat kay. Hmm. recevoir sa mbokk waru laa jafe. waaw dëgg dëgg. waaw mais dafa dafa bokkul Pastef na jënd carte Pastef rek. ah waaw bu ko jëndee tey ji bu subaa ñu recevoir. aywa ma jigéen. Hmm. Euh, mbir yi de émission bu bari na ay malade yu fa yàgg jaar li ñu leen di partagé duñ leen sax partagé comme soxna si soxna si nag bari na lool li muy wëndeelu ci réseau sociaux yi ndax ñu koy partagé euh, dañ koo yërëm wala dañu xeex ak <laughs> waaw sooy bu en tout cas euh, metti na li ko daal ñu ngi koy masaw bu baax baax moom ak rakkam jooju noonu feebar. Mm. mais man du ma dugg ci détails yu ndax moo bokk ak euh, président de la république parce que mënu aw ma ci benn euh, certitude que ni mbokkam la. Mm. mais li Omar wax ne waru ko publier ah kay. parce que soo fekkee ne da nga làmbatu ci ussu yi nga mënoon jaar yépp pour ñu dimbali la. Mm. te ñu gis ni à chaque fois nit yi tant que demuñu ba ñu dékk leen micro ñu gis seen situation ñi leen war jàppale duñ leen jàppale. Mm-hmm. te Marème Faye Sall amoon na fi fondation bu ñu doon wax. fondation Sénégal voilà ba ñu ko tasee sax yàggul. mais ku nga xamante ne nii daf ne yow sa mbokk la ni nga mën a def ba dimbali yeneen i nit yi nga xamante ne nii dañ daan faral di wax ñoo xam ne Marème xamu leen bokkuñu leen. Mm-hmm. ah wala président xamu leen bokkuñu lenn ñu leen di dimbali donc ku ne yow mi sa mbokk la kooku kon donc koo war a dimbali nekkul ni sax sama waajur moom moo moom moo moom moo moom moo dundoon mhm. mu leen doon jox mais bu fekkee dañ la jox réew nga ni yaa ngi fexe nu ndaw ñi amee liggéey mhm. ah yaa ñu ngi koy wax sànq euh, si fee ñu toogoon ñu fexe ni ñi ni ñuy def ba am liggéey ci mbir yi nii ngay jàppale ñi nga xamante ne nii jegewuñ la kon donc say mbokk la war a njëkkee d'abord parce que yàgg nga fi dégg ñuy wax ay kilifa yoo xamante ne nii dañoo yor lu dul jeex mais faale wuñu seen i mbokk duñ leen dimbali. am na mbokk yoo xam ne dañ lay sori ba nga jekk ñu doog a jikk de. waaw waaw loolu am na mais am na ñoo xamante ne nii genre samba alaar laa ko mën a laa ko mën a tuddee parce que yàgg nga dégg ñuy wax ne diw mii kat li mu yodde bu ci dimbali woon ay mbokkam du ñu wër di yalwaane. maanaam alalu réew mi daal du ñu waxuma alalu réew mi non non waxuma alalu réew mi mais moom même bu dee alal alalu réew mi la ñoo ngi créer ay emploi yoo xamante ne nit yi ñu ngi ci mën a dem liggéeyi pour mën a suqali seen bopp loolu su ko defoon ay mbokkam fexe ba ku nekk mu nekkul loo xamante ni daf leen koy may mu mel ni sarax la mais nga fexe ba ñoom ñooñu noonu du ñu dem jaayi ndox dinañ am liggéey bu nga xamante ne nii du mën a dem chaque jour di sàkku ci président bi wala jabaram pour ñu defal leen mais li ngay def si àll ba daal na jiitu si say mbokk ba pare nga jàppale leen d'abord jox leen liggéey am na olof Njaay lu muy wax dama ko mënut a tekkee may la jën jën jox la ni ñuy nappee ba bu ëllëgee yow doo tala dem di ñaani kenn di nga am loo xamante ni yaa ngi koy suturloo sa bopp son yóbbu voilà mi ngi noonu jaajëf Adja soxna si de gis nga ko de vidéo baa ngay def tour ci réseaux sociaux yi yàgg na ah seetaanoon nga ko waaw man nag euh, son yóbbu dafa am loo xam ni su méttee su kii du ma ko eggale dinaa xool nii rek mais bu kiiwee damay. Ah, bàyyi def na ay ñaata weer man de maa ngi ciy doog a. Euh, kii na de yàgg na de temps yee la. temps yee la nañ ko kii hmm. ni mu xale moom kii bii. moom maire bi. Hmm. waaw def nañ ko. def na ñaata weer. déedéet est que amul ay trois semaine wala un mois rek parce que yàgg na ci kii bi yàgg na ci date bi. man gis naa ko. gis naa ko gisati ko. vraiment muy loo xam ni euh, ku nekk ci internet bi war nga koo mën a gis. Mhm. ku nekk ci internet bi. Mhm. wala nga am ay influenceur influenceurs yooyu dinañ ko gis comprendre nga li ma bëgg a wax. waaw buñ ko gisee mun nañ ko wax keneen keneen wax ko keneen du loo xam loo xam ne la day euh, gudd na. parce que lii yàgg na. man nag euh, dama koy dama koy wax euh, parce que li li kii daan dundee nu mu tëddee nu koy waxee ci olof. lu koy mën nga koo dundee ba léegi xam nga ndax lan. Mhm. ñoom ñu ngi woon di dund te Macky Sall ngi ci réew mi te di nekk président te xamagul woon ko musul musul def nii. kon donc bu defee xëy xëy na bu demee def lii. Mhm. dafa am fu mu toll ndax daana dimbali seen papa. waaw dimbali seen papa seen papa di ko dimbali. Mhm. kon est-ce que ba tey Macky Macky Sall mënta def tamit lu lu kii def rek lu kenn am problème rek mu ni xaaral ma dem ca loola. te ay doomam di jël ay xaalis. di ko may ay géwal déedéet te say mbokk ne fi. waaw ah, yow nee nga xamoo ba xam ay mbokkam lañ. non dama ne. Ah. waaw ma ni man mënuma am am certitude ah, que ni mbokkam mbokkam la mais su fekkee ni doomam dafay jël ay yore maletam di di ko joxe te kii nekk si jafe-jafe war nga koo mën a dimbali dëgg la jóoba jub waaw bàyyi continue xamatuma sax lu may wax joxe saa continue vraiment xamatuma la vraiment xamatuma da nga kii xamatuma d'accord mhm. lu mel nii de li muy am bari na kenn mm-hmm. ku ne ci ñun moo xam ñiy seetaan ku ci nekk soo ko yëgee soo ko yëgul mm-hmm. eh, des fois nit taxaw fenn bu ñu ne ah son bi wala sànja wala sukaa mu ne pourtant sama mbokk la de te nan lay gisee sax mën nañoo xas sa mbokk mm-hmm. te ñu xam ndax sa mbokk xam nga ko waaw ah, daloon na ma bi ne ci rajo bi ci VDN bi benn euh, soxna seet si ma ni ma Moustapha Niass ci partem laa nekkoon waaye defalu ma dara maanaam te da doon yalwaan foofu maa ngi reportage ba tey sax te nee na Moustapha Niass euh, mbokkam la te defalu ko dara te day yalwaan mi ngi foofu ci VDN bi lii ndax yàqum der la wala jàpp nga ni kii bu dee mbokkum président nii la waroon a def. waaw lii de ku ne am na ko lii moom ku ne am nga mbokk moo xamante ni jàpp na ne waroon nga koo defal defaloo ko. Hmm. loolu moom ku ne ko loolu moom euh, réew mi yëpp ko partagé euh, te ku ci dee ko mën nañ laa waxal nit mën naa fële fëgg dënnam daal ne diwa ngi nii ne ci télé bi. war maa defal defaluma dara. maa ngi nii. te sama lii la. Hmm. pareen saa yi ñëpp moom kenn mënu leen a satisfaire kenn mënut a def lépp yàlla mi ko mën sax defu ko. Mhm. waaw yàlla mi nga xamante ne bi mën naa defal ñëpp lépp dox defu ko comme ni nga xamante ne bi peut-être noonu la ko nit ñi bëggee moo xam li tax mu mu def ko. Mhm. mais li am solo. waaw mooy ndaw si moom Macky defal na ko. defal na ko xam waaw parce que Macky defal na papaam papaam defal ko. maanaam mhm. moo leen daan dimbali ñu di leen dimbali. donc mi nga leen ko def papaam la xam. peut-être a parce mhm. que am na ñoo xamante ni bii tey. waaw eh, famille mën na yaatu yaatu goo xam ni diw ak diw bokk yi ay doomu baay bañ mën nga dem ba am ñoo xam ni sax mën nga leen a bañ a xam. parce que tamit pareen saay eh, nit ñi xëy ñu xëy rek yegg fi ñuy yegg. pareen saay am na nit ñoo xam ni kenn mën nañ laa bañ a lijjanti bañ a topp ci say mbir tey bu ñu lay wax ne la trajet président fi nga xam ni fa la jaar peut-être am na yi ñu lay wax noonu yëpp da da ngay gisaat reflet bi quoi maanaam tey xoslu bi mu daan xoslu. nga xamante ni bi moom ak soxnaam moom ak kiiwam comprendre nga mais da ngay gis ni tey li ko ñii di ñi koy reproché li ñuy reproché ne defarul mbokkam mi pourtant ñoo koy reproché ne dafa defal ay mbokkam ñaar yëpp mi nga parce que tey ñun ñaa ñaa naan lépp nguur gi yëpp ma famille Faye Sall kii tumb mi dopp c'est parce que dafa jël ay mbokkam yëpp dugal leen ci nguur gi loolu du dëkk donc loolu da ngay gis ni angle boobu moo tax mbir mi bu ko jëloon am na loo xam ne ma jigéen wax na ko daal ne nit dangay ngay dimbali euh, say kii dugal leen ci yenn yi mais bu leen ko dugalee ci yenn yi loolu mooy indi li ñi ŋàññ. parce que am na yoo xamante ni bi kenn parce que président boo xasee ba doon ko danga war a xam ni nekkatul problème mu famille. yoratoog njaboot maanaam Sénégal yëpp sax njaboot lañ. loolu mooy rôle président. Mhm. parce que nekkatoo père de famille bi nga xam ni këram la gérer ak njabootam ak yooyu yow yaa gérer réew mi maanaam ka sant euh, euh, Jaañ ak ka sant Faal ka sant Jóob ka sant ñooñu ñëpp ak noo mën a sant sax njaboot lañ. Mhm. dafa am lu la warloo ak ñoom dafa am yaakaar goo xam ne am nañ ko ci yow. que ni nag da ngay ñëw di partager ak say mbokk loolu kenn nanguwu ko boo gisee tey jii ay ñoom Aliou Sall ak ay ñoomin euh, oh, kii nu mu tëddee Mansour fay ak ñooñu nga xamante ne xejj nañ ci nguur gi nit ñi di ñaawlu lool ne famem waruñu occuper yenn post yi comprendre nga mm. famem waruñu occuper yenn poste yi donc moo tax bu fekkente ni bi tey yaa ngi ŋàññi président ci defarul mbokkam bi kon dafa mel ni da war nangu fële kon da boo toppee sa logique da nga war a nangu kon lii muy defal ay mbokkam kon da nga ko war a nangu mais alaaji defal c'est pas forcément nga jël leen dugal leen ci gouvernement bi defal ma la la wax sànq da nga ne bu may la jën jàngal la nii napp waaw léegi ma man am na yeneen léegi lan mooy jàngal napp am na yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen kii yoo xamante ni soo ko dimbalee mu moo tax muy nuur ak nuqi ñu doon nii kay Aliou Sall gis nga ko ni muy nappee napp pétrole xew ma loolu waxew ma foofu de genre mën nga ko jox mu liggéey xaar ko autant mu dugg ci si bi léegi léegi waxuñu loolu dugg ci gouvernement tey xam nga tey jii mën nga ñëw ci benn post boo xam ne mën na nekk sa secrétaire fenn mhm. ñu favoriser la c'est parce que mbokk Macky Sall la ñu ñu ñu favoriser ko parce que mbokk Macky la ñu xañ la poste ba mhm. bu boobaa boo génnee looy wax parce que mbokk Macky la moo tax ñu daal di koy fal ci post bi mhm. bu boobaa da ngay wax loolu donc may napp googu moom bu bu fekk yaa ci napp gi rek mooy li Aliou Aliou Sall dafa napp jàpp jën bu mag Mansour fay napp jàpp jën bu mag dëgg loolu mooy li nga xamante léegi jëmmi tasaare vidéo bi nag léegi jëmmi tasaare vidéo bi maam ma ne ñi ko tasaare moom dañuy wane ne waa ji moom jàppale wut ay mbokkam te ñun ñëpp dañ ne waa ji dafa jox ay mbokkam bu mu ëpp ci loolu lañ ma sa waaw donc jëmmi tasaare vidéo bi bu dee dañ ne waa ji jàppale ay mbokkam kon ñi ngi lay wan ci biir wax ji ne la kiñ doon wax ni ay mbokkam de jàppalewu leen mu ngi leen di jàppale bu mu ëpp ndekete yow ay mbokkam a ngi sonn yaa ngi dégg. Mhm. léegi ñun kon dañoo bëgg a dindi ci li nga xamante ni bi mooy logique bi ñu nekkoon wala lan en tout cas ay mbokkam a ngi sonn xam nga partagé nañu ñaari yoon ay mbokkam yuy sonn muy maire boobu doon wax naan kër bi comprendre nga ak kii mhm. comprendre nga loolu day dellu rek ci nit ñi dañuy ñi ngi mel ni kon li ñuy ŋàññee président Macky Sall di wax ne day jàppale ay mbokkam même vidéo yi bu ñëwee day weddi kon loolu. te loolu war ta waa xam nga. li am solo daal mooy président président daal ñun li ñu bëggoon mu ne. Ah. Mhm. li ñu bëgg mu ne. que ni doomu bàjjanam ak doomu tàntaam bu ko bu mu jàppale loolu wax dëgg yàlla suñu yoon newu ci. Mm. mbirum famille la. kii moo xam la mu ndax jàppalewu leen moo ñoo xam ñun suñu yoon newu ñun réew lañ ko dénk. réew mi ñu ko dénk. la ñu am ak moom mbir ne ko réew mii doxal ko parce que bu ñu defu ndànk rek dañuy perdre mbir bi bu ñu duggee ci famille jàmbur di ñu xuus ne ci naan non na jàppale sëram bi alaaji daal ni ñu koy defalee ñeneen ñi war nañu non non non non non du nga leen war a eh, kon su boobaa sax yow da ngay gëm ni ma baal ma rek su boobaa yow da ngay gëm ni kon mbokkam la yow da ngaa gëm ne mbokkam la. non dama ne moom xam nga ah, kii kii moom bu affiché woon ne mbokkam la ñeme ah, wuta ñeme koo sosal. Hmm. parce que kii moom li mu wax moom. ne fang ne sama papa ak kii moom ñoo bokk papa. Hmm. loolu mu wax moom. ñeme ñeme ñemewu ko ñemewu koo sos. gaw ma ni sos na ko. d'accord bon yaa sos. Omar ah. mbir mi xam nga même bu koy jàppale. Hmm. même bu koy jàppale. yaa ngi dégg mais man man laa wax man sama gis-gis man ci président man ni ma war a jàppee man président man. Mm-hmm. man ni ma jàppee président mooy koo xamante ni kii ñun ñi ñëpp njabootam lañ. Mm-hmm. man loolu laa jàpp. comprendre nga que ni nag kenn jóge fa leen man mi kon aw ma sañ-sañ ñu jóg ne man it mi ngi nii defalu ma dara. wax nga ah, kay dama war a am sañ-sañ boobu. Mm-hmm. dafa lu tax moom dafa ma war a jàppale. parce que dañ ko bu dee dañ ko teg ci table ji di ko juger tant que président Macky Sall bu loolu waa FAMEM ñoo koy lijjee man sama yoon. alaaji alaaji dama ne. Ah. ma ni ñoom dañoo yoroon seen fondation boo xamante ni ñi feebar ñëpp wa ah, dañ dañ doon fajaate di jël nit ñi di leen bi bitim réew di leen faj lan moo tax mënuñu ko defal kii puisque ñoom ñu ñu ngi doon def loolu. est-ce que xam nga ay waxu xam nga ñu ñu ñu ko doon defal xamu leen. waaw waaw waaw xam nga ñu ko doon defal xamu leen. famille dafa bari ay problème yu ne. dëgg la dama laaj ñu di leen faj. ñoom kenn xamu leen woon dafa bari ay problème yu nekk ci biir jafe-jafe a problème mu réew la ñu euh, man yoon newu ci waaye daal réew moom nañ fexe. mais man man li ma bëggoon dolli rek mooy uh-huh. bu mënee war internet ba gis ab saagakat. wax dëgg. mën ko recevoir. saagakat bi pare ne xaalis bi lan ma jox. saagakat bi entourage ko yóbbu waaw entourage boobu laay wax sànq. Ah, ma ne la kon kilifa kilifa dañ ko war a dimbali. voilà ah Adama de nee na amul. jox na leen ah waaw non non man dama koo dégg bi rek yaa ngi mais man côté boobu laay waxee. ñi mën a dem jëli ab saagakat. Mm. jébbal ko président ba président mun ko taxaw mun a photo ak moom ñooñu war nañ mën a dox ci diggante ay mbokkam ba yu mel nii du génn ba ñëpp du ci jot comme tey ji la famille de Macky Sall tuddatuma président bi comme ni ko saa di waxee mais la famille am na ay doom am na ay lépp te doom yi ñu ngi ak teraanga nan dox ci diggante président ak mbokk yi daf ci am loo xam ne président mënu ko mais daa am ñu war a dox ci digganteem ak ay mbokkam di régler yenn détails yi yaa ngi gis di régler yenn di régler di régler yenn détails yi mais aussi tamit di leen taxawoo parce que moom bu leen taxawoo da leen war a taxawu. bu leen taxawu da leen war a taxawu loolu moom lu war la. léegi nag yeneen détails président war na defal ñëpp la warul leen defal. Mhm. mais lii bu dee ni tey lu am la lii sagalu ko. te gëm naa ni bu ci jotee noo ko réglé parce que tamit mu ngi def lu ëpp lii. kon tey ji soxna si nan ko nan ko dimbali rek man loolu laa gis. mi ngi maye ma jigéen te ngeen ko jox kii bi nee na nee na dooy mag ay millions la maye. teg ko micro ko teg ko micro ko maa ko gis. Ah, waaw ma Aliou kii doom ju góor ji nekk si oto ay géwal wër ko mu yëkkati ay ubbi maletam di leen jox léegi boo ko mënalee ñooñu nga war koo war a mënal say mbokk yow yaa ne woon doo xamoon ay mbokkam lañ di non man déggoo lu ma la wax <laughs> soo yëgu danga may déglu déedéet dama ne la man mënuma mënuma am affirmation que ni mbokkam la même bu mbokkam war na war na koo defal la jigéen la néew doole dem na ba egg ci niveau bi dañ koo war a dimbali faj ko jeex na man même bu dul daraam. da koo war a jàpp bu dee bu dee ku ñuy dimbale en tant que sénégalais la tamit. forme boobu nga wax man it boo ànduma ñuy dimbalee noonu. nañ defal boo def président bu ñu la falee la pour nga yor kii ñu ñaan diw feebar nañ. nga ñëw joxe du noonu mais ñoom loolu lañ doon noonu la doon def mais warta demee noonu dem loolu moom lañ mais c'est que réew mi fekk mi ngi doxee noonu réew mi du dem torom kii male joobaay Biden male wala Macron yorut ab malet boo xam ne. boo ne sama jiw ah joxe kii ñaan président bi nga maye fii loolu doxalut du réew. réew boo koy doxal dafay dafay tegu ci yoon woo xamante ni. Hmm. ki nga xamante ni kii tey mooy ka ca kaw ba ki ci suuf. Hmm. ñu yem ci secteur santé ba nga xamante ni nit ki bu feebaree mën a dem faju hmm. nga xamante ni kay faju ab sénégalais la. comprendre nga sénégalais kay faj. moom ngay fexe ñuy faj social na yoo xamante ni soo demee hôpital boo yorul xaalis duñ la laaj non saa loolu la fi bëgg a jël li saa wax am na naa social yoo xam ne tey ku ñàkk man xam nga fi mooy saa li moo wax léegi dafa am solo mhm. man son bu jóg mii samay ndijaay yi nekk Mali am na ci ñoo xam ne ay ministre lañ mi waaw man mhm. pourtant bi may toog sama jabar di am écho euh, douze mille xaw ma onze mille ma am problème mu fay taxul ma woon ne sama nijaay ministre la naa ko mu faj ko de taxul ma de di yàq sama der ne pourtant ni may kii ne ay doomam ay oto la ñuy yor nangam xam nga moto mali sax dañu ay moto la ñu bëgg dañu bëgg doomam yi koo dem am na moto am na oto dama ko war a woo déedéet damay fekk si li saa wax ci ni am na koo xam ne bu ñu ko dénkee problème mu njaboot problème mu réew du yow da ngaa war a ñàkk rek ni sama ndiyaay ji lu tax mu nekk fii wala sama baay bi wala sama kii damaa war a am. dëgg la mm-hmm, du force. du force non yow est-ce que sa papa bi muy nekk armée c'est forcément que xale ñi ne seen famille ñi nekk ñi bëgg a def armée dañoo war a dugg force armée déedéet cest à du la a faj non non c'est-à-dire nit nit rek yow foo ne sa mbokk fu mu ne rek da nga war a nekk déedéet da ngay nit da ngay jéem góorgóorlu dafa am yoo xam ne dafa am fu mu war a jaar. gis nga jigéen bés bu affaire yi déraillé rek. waaw wax la man alaaji waxuma ñu déraillé mais dañ doon jàppale ni ñu feebar ko mu mën nañ ko wax ne ko kii bu boobaa dañ koy teg ci cadre président di yëg mm-hmm. bi mais mi ngi noonu euh, mbirum famille la quoi maa ngi nuyu président Wade sax di nuyu sama nijaay yi nekk foofu ca Mali ndeysaan waaw ak euh, fu ñu mën a nekk maa ngi leen di nuyu baax a baax ndeysaan waaw dégguma nag koroboro waaye maa ngi leen di nuyu xam naa am dégg waaw dégguma koroboro sama yaay xam naa dina leen ko jottali mu wax leen jërëjëf sooy aywa kon ba suba ak jàmm incha allah président nag ba léegi daal. demagoo bàyyi naa <laughs>